ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen siyaar ku ci nekk sa turo sa sant di kontaan ci bis bi balaa ñu yegg ci loolu ñu wax ni leen ñun man maay Cheikh Mbacke mbay di jëwriñu kuréel di 18 safar Touba Cité Senghor tey li ñu dajale fii sëñ mbay mooy bernde bernde mooy sababu daja bi waaw ndaxte booba dañoo dajaloo bi mooy juróomi at ci ren ñuy ñuy sabab lu mel nii di ko di ko def ci bëgg sëriñ bi ak ci jëfe ndigalu sëriñ bi ci li mu santaane woon ci bis bi ni bu ñëwee na ngeen ma ci santale yàlla ñu xam ni sëriñ Saliou tegoo ci beneen yoon wu gën a gaaw nee na mooy sant yàlla ci joxe ñam ñun tamit ñu tànn ci loolu lii ci lañ ci lañ fas yéenee def lii booba tey ñu koy def wax dëgg yàlla sëriñ bi dañu ci defal ay xéewal bu baax a baax a baax bañ koy yëg moo tax loolu daal moo ñu dajale fii sëñ mbay daal ci gàtt. waaw ren la gën a am solo ci daaw daaw moo gën a am solo ci daaw jéeg loolu sëriñ bi defal nañu ko li ñuy def ba dajale ko nag xëy na ñun ay xale lañ ñu dëkk ci quartier bi ñenn ñu dëkkuñu fi waaye da li ñuy def ba dajale ko mooy ku nekk rek day xool li mu am ci ñàkkam rek ñu koy dajale di ko def ci lu mel nii ak tamit am na ay mbokk taaliba yu nekk ci quartier bi yoo xamante ni dañuy jàppale bu baax a baax a baax a baax looloo tax ñuy mën di def lii. waaw li ñuy berneele ñuy dem mooy xam nañ ni jamono ji dafa tàng nit ñi dañ soxla lu sedd muy ndox wala boisson suñ demee ba ngoon fi ni ñu ngi ñu ngi waaj yàq añ suñ yàqee añ après am nañ fi ay caakiri yu ñu defaroon am nañ fi ay sandwich buñ paree dinañ fi toggaat reer tamit bu subaa it noonu lañ koy defewaatee comme démb noonu lañ ko defee woon ak tey ak suba incha allah. waaw sunu mébét beneen yoon sëñ mbay mooy gën a yokk rek gën a yokk ndax nee nañ yoonu Serigne Touba bi boo defee ren dix bu déwénee boo defee neuf day mel ni sa jëf nanguwul ñun noonu la ñuy doxee bëgg nañ bu déwénee tamit ñu defaat lu gën a raw lii incha allah. kuréel gi ñu ko ŋànk mooy ñun ñii ay xale ñu dëkk ci quartier bi. mën naa cee wax ay ay ku mel ni Ablaye Gueye Pape Diop Ndeena njaay ci góor ñi ak man Cheikh Mbacke Mbaye ak ku ñuy wax Modou Fall Mbuub ak Njagamaar ci jigéen ñi am na Yaanu Baas ak Kunta Mbacke ñooñu daal ñoo nekk di doxal ci bopp kuréel gi loolu yàlla dogal sama kàddu gu mujj mooy di sant waa quartier bi yëpp ndax lii nii yombul yombul ci ñun yombul ci ñun ñu waroon koo def ndax boo wootee meeru koñ bi yëpp génn di si jàpp-jàpp boo xamante ni maara day taali di ci demee seen pas-pas ak seen doole loolu mooy sama kàddu gu mujj di leen sant di leen gërëm di leen wax Serigne Touba yàlla na leen fay ak ku mel ni yow it Mbaye Samb ñu wax sëriñ Touba yàlla na la defal lu kawe sa njort ndax gis nañ ni ni nga jàppee ci bis bi tooy na sunu xol daal neex nañu torop di la sant di la gërëm bu baax a baax a baax loolu la ñu wax